ki nga xam ne yéen a ngi seetaan 24actu point com ñu dikkaat ak yéen ci invité de la rédaction tey jii nag ñu fas yéene dal koo xam ne ràññee nañ ko lool ñu koy yàq wax euh, Yabsa Fall nekk taalibeb Serigne Abdou Karim Mbacke euh, ñu fas yéene waxtaanee ay ponk yoo xam ne soxal na askan wi ndaxte ku ñu ràññee la ci ak euh, ay jëf yoo xam ne daf koy faral di jëf jamono ji nag ay ay fan yu new rek daanaka dox ci jongante njiitu réew yi nga xam ne ñi ngi la moom la ñu dënmal Yabsa gannaaw ba ñu la nuyoo ma bàyyi la nga nuyoo ak waa 24actu ñu doog a dugg ci laaj salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di siyaare bu baax ah, di kontaan ci yéen ci dalal bi ngeen ñu dalal ah, ndax euh, li ñu jub euh, Sénégalais yëpp ñoo ci am cër kon boole ma dalalee fii tey pour ñu waxtaane ko loolu dana ma neex lool lool ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax. jërëjëf yëpp sa ñu jut ay élection jamono ji daanaka xol yi tàmbalee tàng wala dënn yi tàmbalee jóg yow euh, élection yi ñu jub lan nga ci wax d'abord. a ah, élection yi lima ma mooy dañ ko war a def ci fair play def ko ci transparent def ko ci benn dynamique bu am solo ah, waaye loolu nag li nga xam ni moo koy sabab mooy ñi nga xam ne ñoo nekk te yàlla jiital leen ñu ne ci réew mi yu jongante yu mel ni bu demee ba war a tàmbali eh, nga xam ne léegi ñëpp ay candidature lañu da ngaa war a am diplomatie bu toll nii candidat bu nekk àqam ak yelleefam nga jox ko ko bu ñu demee ba ba toll ca euh, ku yàlla defal ndam ñu xam ne kii moom la yàlla defal ndam waaye ne ci am réew euh, di xool ni ngay defee di taamu ñi nga xam ne ñoom ngay jëflanteel loolu rafetlu wuñ ko ndax doonut loo xam ni eh, ndax la waaj a waxoon rek dana ko sëñ bi ñaanal ma euh, jàmm am ci réew mi mu ko jàmm du lu ñuy ñaan da koy def ma def ko kii def ko kee def ko jàmm door am. waaye bu dee defoo jàmm wala waxoo jàmm ba pare bëgg jàmm am ah déedéet jàmm du mën a am. yow da ngaa jàpp ne ki fi nekk deful jàmm. ah déedéet deful jàmm waxuma la ñàkk a def waaw man samay jàngat xam nga man damaa doon koo xam ni euh, en même temps chroniqueur laa euh, bu mënee la jàkk rek sa niveau savoir faire damay xam fu mu toll ba xam yow sak man niveau bi masa man fan la toll ak sa télé fan la toll. ba xam ak bëgg moo ne ci yow wala ak man moo ne ci yow. waa naa ni wax dëgg yàlla euh, la waaja waxoon rek laay wax waa ji daa toog di waxtaan ak njabootam daa di lim ki fi njëkk daa di ki fi njëkk nii la defee mu am solo daa di ki ci topp da di la defee dama am solo daa di ki ci top ñu ne mun leen nii la defee te mu am solo. daan waaye nag ki ci toppaat gaa yi ne tekk mun leen li ma jaaxal de moom daa yëkkati séew bi dugg ci marché bi rek sénégalais yëpp jóg ni mënta togg <laughs> kooku benn historien la boo xam ne euh, euh, ça passe dans l'histoire euh, ki ma la koy mengaleel mën naa ne waaw mën naa ko méngale ku mel ne Akasa donte nekkul ko ay Akasa dafa doon koo xam ne moom daa jeex tàkk Serigne Touba ba tax na ay waxam. boo ko déggoo rek day mën a jawali foofu. léegi euh, ñu gis ne parmi candidats yi nga xam ne ñoo ci am muy cinq candidats yi yow euh, dañ laa gis ngay ànd ak Idrissa Seck ndax mën nañoo xam lu waral loolu. waa li ko waral loolu moom mën ngeen koo xam ndax man Sénégal ku ma xam-xam ni parti démocratique sénégalais euh, moom moom a ñor falaa mës nekk muy PDS. dara jëleel ma fa lu sama candidature bi nga xam ni dañ koo baare muy monsieur Karim Wade bi ma xoolee mel ne tey woo ma téléphone jour bi nga xamee ni ci la campagne tijji xamal ma ni dañuy taxawal benn mouvement soutenir monsieur Idrissa Seck ma ne ko loolu am na solo ndax li ma gën a neex ci monsieur sa Seck mooy am na savoir faire mooy li ma léegi ne man damaa gëm ko am xam-xam boo gisee damaa dajale sax ñeen ci waa adduna bi ñoo xam ne ñii dañoo am xam-xam ma gëm leen di leen suivre di leen bàyyi xel ndax seen xam-xam. waa ca la bokk bu baax am naa ci yaakaar bu baax a baax a baax ndax euh, bi amee xam-xam garde ko euh, loo gis daa am lu koy tëj mu door a mat ak saa yëkkoon li koy tëj nag mooy daa jébbal boppam si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jébbal goog nga xam jébbal na ko boppam si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul muy lu am solo muy sunu mbokk taalibe nga xam ni dana bokkoon ak moom Sénégal mu doon sénégalais ñu yem foofu waaye nag euh, daa dem ba ci biir mu yokkaat beneen jéego. jéego bi mooy daa jébbal boppam Serigne Mountakha mi nga xam ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim sol kon nag Idrissa sek sénégalais la woon euh, doon suñu mbokkum julit waaye tey nag daa leen lu ci yokkaat daa doon sénégalais doon suñu mbokkum julit doon suñu mbokkum taalibe te te te te li ci ëpp solo mooy jàngantu dafa jàng ndax man bu ma la dégloo nga wax rek dinaa xam sa jàng kàng nga wala kàng la waaye président Idrissa Seck kàng fóori la kàng dafa am loo xam ni Euh, nit ñi dañuy faral du ñu faral di comprendre loolu des fois nga gis nit koo xam ni euh, daa passé examen jàllut nga yaakaar dafa ayut fekk aay na du woon moment boobu waaye le moment venu rek day day day day daal di leer nañu nañu nañu nañ lu mel noonu moo waral tey ku mel ne tey monsieur Idrissa Seck nga gis ren nim duggee ci xolu jaami yàlla yi ndax euh, li waaye ji doon wax rek nee buur li folli Euh, bu ko bu ko bu ko gisee sax du ko neex wala dana ko gis nii jaxran waaye du ko neex loolu mooy wax ji te loolu lu leer naññ naññ naññ la looloo waral ngay gis euh, ñenn ñi yaakaar ni euh, président Idrissa Seck mënu leen a jëlee ci réew mi weesu na leen fee mën a jëlee xanaa kay sunu borom dañ doon xaar. délai bi jot waaw mooy bu pur et dur bi pur et dur xam nga leen dafa am sànq gars yi ñu ngi koy wax. sunu ndaje mi ñu amoon fii boo gisee mu mel nii dañ fee dajaloo woon euh, doon fi dal ay gan yoo xam ni waa parti réew mi la ak sunu coalition bi nga xam dafa tàbbi ci biir fa seen a jàppale monsieur sa Seck gis nga réew mu mel ne Sénégal. Euh, man li may sant Abdoulaye mooy dafa ñëw leen rek laa ko doon mere muy euh, il aime beaucoup toléré lim daan toléré daa bari waaye tey jii Euh, lenn rek euh, la santé Macky Sall muy euh, soxor gi nga xam ne mi ngi koy wan sénégalais yi dafa soxor. waaw il est méchant dafa soxor. continuer xam naa jotaay bi li ci des bëriwul waaye ñu waxtaan rek gis nañ ne fi mu toll campagne électorale bi gis nañ ay bakkan tàmbale di rot nit ñi ak violence bi loolu lan nga jàpp ne moo ko waral. waaw loolu xam nga tamit dafa am loo xam ne nee naa la sànq samay tàmbalee wax porte bonheur dafa am. ak porte malheur bu fekkee signal bi nekk ci yow porte malheur lañ gis ci yow ndax man mi doon tàmbalee wax ci ne la euh, ki ma dimbali daa def ci man lu ma la jàkk xam lu mu doon moo xam lu positif la moo xam lu négatif la loolu yàlla sun borom moo ko def ñi gisit te xam ma dëkk Touba ma yàgg a jaxasoog ñoom ñenn ñi nekk centre commercial Sëñ Fallou centre commercial Sëñ Mourtala centre commercial Massamba Dieng ndax chargé des relation de Touba ci gestion boobu lay liggéeyee man waaw euh, loolu loolu li ko waral mooy que euh, ndax am réew boo ci nekkee maanaam nga xam ni yow ci jaay doole ngay dox jaay doole baaxut jaay doole baaxul nit da nga war di am savoir négocier gis nga tey fii fii mondialisation bi toll cheikhu tarbiya yi nga xam ñoom ñun moom lañ nekkal dafa am benn niveau jàngat bu ma jàngee ci ñoom muy benn diplomatie boo xam ni ko laaj départ volontaire sax dañ la koy nangul waaw. léegi ndax jàppoon ne waaw loolu moom mënu cee ñàkk euh, ndax dama laa wax ne la porte malheur bu xasee ne ci yow force nga def sacrifice. porte malheur bu nekkee déedéet baaxul porte bonheur la ñuy te nit ku ne am na ñaari chiffres yu day ceew bii bonheur la bii malheur la waaw léegi nag looloo waral ni soo dalee ci malheur bi lu ko waral mooy yàlla punition yàlla da doon puni sénégalais yi sept ans yii yàlla da doon puni sénégalais yi parce que euh, l'impolitesse bi nekkoon nga xam ni tey jii exemplaire ni amoon nañ lu baax war koo téye liñ naan boo amee ku baax war koo téye téyewoo ko nga sàgganee ko ba mu dem man musuma votel Macky Sall te duma ko mës a votel ba yàllay wal boftu bi man ko am xam-xam rek laay àndal. question bu dañuy génn naan. Ah. sangam mooy waaw loolu moom da ci am ñoo xam ni am na ñu ko man waaye ñu ko man duñ génn ci ay média di wax naan waaw waaw am na ñoo xam ne buñ cadré bal bi fañ bëgg fa la jëm te ñoom xam nañ leen te ñu ngi ci barab toog. ñoom ñoo yor lii ne ci ordinateur souris ñoom ñoo yor bi te fu leen neex lañ koy orienté. di di di ñàkk yar ñoom ñi ngi assisté te buñ leen waxee bàyyi leen duñ bàyyi kon moment bu leen yàlla di punir tamit bu yàlla di indi sanction bi ñoom it dañuy tànqamlu dañuy tànqamlu c'est à cause de sa euh, sept ans yii nga xam tey da ngeen koo dund yéen sénégalais man nag sept ans yi dama cee yokk dama cee yokk bu baax a baax ndax. Euh, am naa ci ay yu bëree bëri bëri. xam naa dinañu am jërëjëf jërëjëf. ah li muy tàggoo mooy di sant Sénégalais yëpp. Euh, particulièrement waa région de Diourbel département de Touba en même temps wa Ndindi maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di sant tous les sénégalais ba pare di leen sensibiliser di leen xamal ni yéen waa bu leen nangu. jël seen carte électeur di ko joxaan Macky Sall ngir jëmmi yàlla ndax euh, koo xam ni euh, dalay yoot la gelawaar doon wax rek nee na lii ab joxañ la waaye nee na lii ab yelwaan la loolu nag jàngat la ndax tey ji ñii nga xam tey dañoo nekk fii ci kayit gi ànd ak président Idrissa Seck ku mel ne Hadjibou Soumaré euh, ku mel ni ku mel ne ñoom ñëpp rek nga xam ni dañoo doon ay taalibe Cheikh Ahmadou Bamba ba pare ak man dafa ne ci ñoom kon ngir jëm yàlla na ngeen bàyyi xel bu bis baa ngeen jël seen carte wooteel monsieur Idrissa Seck képp koo xam ni man en tant que yab sa xànc dëkk fii Touba doon taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke borom a Akhlaa maa ngi lancé appel képp koo xam ni suma xarit nga nekk tailleur wala nga nekk commerçant maa ngi ñaan pour euh, économie bu dëkk bi nii mu daanoo. mu jóg delluwaat fa mu nekkoon ndax ku waxal yàlla nag xam ni économie bi dafa daanu loolu nag bala ngaa xam ni économie bi dafa daanu nga nekk chargé de relations de Touba door a xam ni économie gu réew mi dafa daanu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jërëjëf mu nekkoon invité de la rédaction yàpp sañu ràññee ko lool di taalibeeb Serigne Abdou Karim borom Makarimal Axla waaye tamit koo xam ne dafay faral di xalaat di ko jëmale ci réew mi rek na muy doxee ñu ngi di sant baax di leen gërëm Seexuna moo nekkoon ci caméra bi di leen jox euh, dig daje incha ci yeneen i jotaay ñu fas yéene koo ñi nga xam ne nag moo di suñu gan jërë ngeen jëf